du Sénégal. Euh, Sonko pose le diagnostic euh, qui dit euh, le Premier ministre Ousmane Sonko. Aujourd'hui, nous avons trouvé un État en ruine et les Sénégalais en sauront quelque chose dans les jours à venir kàddu nak Ousmane Sonko mom la yekuti euh, bam mu doon amal rek li nga xamné mo nek journée nationale de l'arbre Moustapha kàddu Ousmane Sonko yi balaa ñu dugg vraiment si euh, situation de ruine euh, même sax l'économie sénégalaise ak mbirub leb yeeg rebond yi ban jangat nga si def par rapport ak cette sortie d'Ousmane Sonko. Ouais, mais li je pense que umpul kenn. Mm. ñëpp xam nañ ne. état bi niñ ko niñ ko jëlee mi ngi mel ni moom tey ji Macky Sall xam nga tey ji toujours ki nga xamante ne dafa dem ci euh, dafay dafay dafay avant dafay dem ci élection te amul chance yu bëri xam na ne amul chance yu bëri pour gagner ko boo moytuwul rek après doo daanaka doo fekk état man mës naa waxtaan ak benn euh, inspecteur des impôts mm. euh, mu ne ma réew bu fekkoon réew day dem fayit mm. mu ne Moustapha bu fekkoon réew day dem fayit ma mën nañu kon nii fayit la ñu jëmee woon parce que mhm. daanaka lépp lépp lépp lépp lépp nërmeelu woon mais su fekkente ne yaa ngi dégg sànq ñoo la wut saat ñu koy redressé ñaata milliards yoo xam te moom la war a fay mhm. bu fekkente ne ñu waroon fay fayuñu ngay wéy di lepp li li li nga jot a encaissé yaa ngi koy dugalaat si beneen beneen yeneen secteur yoo xamante ne amul njëriñ mais bu yàggee réew moom fu mu jëm mhm. xaalis bi ñenn ñaa ngi koy euh, dugal fañ ko warta dugal bu leen rapport jàppee du mujj fenn doxalin boobu noonu malversation boobu gabegie boobu noonu mu doon doxalee loolu mënuñ cee jóge am réew mu am am am santé bu wér léegi nag lii mu wax ni benn signal bu mu joxe la benn ndax bu ne si kanam tuuti di ngeen ci xam dara ba pare tamit rassurer sénégalais neen li ñu leen waxoon yëpp dinañ ko def. Mm. dinañ jubal mbir mi dinañ ko jubbanti dinañ ko jaaral yoon. cela suppose que ne tey jii si kanam tuuti mbirum audit dina dooraat te bu mm. dooree bu ñu woowee diw. woo diw woo diw woo diw bu ngeen ñëwee toog bu ñu tegee dossier bu ñu xëyee journée bu ñu ci waxee nañ xam ne lii ak lii ak lii ci réew mi amoon. donc pour man annonce encore une fois rek bo xamné mi ngi koy def jëmele ko ci ñi nga xamante ñi ngi xaar audit fan lañu fan lañu ñu jëm ma ko ak euh, parce que demba yaa ngi président Bassir Diomaye Faye bu mm. demee Touba ben way mi ngi ko ci ci ci euh, ci vidéo yi président ñu ngi lay jaajëfal ak yu ni mel ak way président bul fàtte rapport yi mm. bul fàtte rapport euh, OFNAC bul fàtte rapport Cour des comptes ak yu ni mel ak yoy c'est pour vous dire que exigence la bo xamantene mën naa ne test bi gën a bi gën a am solo jamono bi moom la leen sénégalais di xaaree. Mm. maanaam ndax ni ñu koy traité day am par parloo ndax dinañ woo diw bàyyi diw ndax dinañ ci dem jusqu'au bout yooyu moom yu am am solo ñuy nekk di leen xaaree jamono ji ndax dañ ciy dem jusqu'au bout parce que nit ñi nee nañ interpellé ki wax ak moom waa def nii woo nañ ko section de recherche ñibbiwaat na def nañ ko mandat de dépôt nga jékki-jékki ñu ne waa négocier ni suuf bàyyi nañ ko mu génn keneen ñëwaat ñu na bàyyiwaat doon fonton ndekete motax mané il faut que ñu dem ci ak ak ak ak nu ñu koy mën a waxee ak détermination. Mm-hmm. ba nga xamante képp ko xamné da nga jël dërëmu réew bi nga indi wat ko. tay ji bu fekkente ne réew mi nga xamante ñom dañ ko dafa ñëw téggu seen loxo mu nekk euh, réew mo xamante comme nim ko waxé légui en ruine la nekk manam dafa dafa nërmelu ba nopi mais réew bu melee non mais les Sénégalais savaient ça lool motax aussi Moustapha ñu tégg leen ci boppam réew mi aussi. hein effectivement voilà mais amaana ñoom. mais quelle est la solution par rapport ak li nga xam ne moo nekk ruine boobu ñu ñu ñu fekk fi la c'est bien beau de faire des euh, annonces mais lan mooy la solution. surtout ak euh, état financier bi nga. xam ne ak non mais solution mooy doxal réew mi rek. oui mooy doxal ko normalement teg ko ci yoon yi nga xamante ni gisuñu ko woon fële. ci secteur boo jël nag ñu yëg ne changement am na ci fii tamit mi ngi relevé wu. Mm. et loolu je pense que.

ñu changer ñi nga xam ne ñooy semaine bi si toppaat ñu ubbi dossier yi ñu commencé que amna ay consultation yu ñu def de wa loolu la dégg ñu ne ñi ngi ay consultation ba amna sax wa benno ñu commencer nan wa dañuy wut seen ay juge fiñ toy yu ñu leen déggal pour ñu mëna def yu ñu mel ni fi ñëpp xam nañ ne fi gaay yi xamante nañ seen biir en tout cas hmm. amna fi juge yo xamante ne fii euh, vraiment ñëpp xam nañ ne kenn mënul leen dara kenn kenn mënul leen dara comme homme de tenue tamit ni ñu mel

ñu woo ko ne ko dañ la bëgg dénk lii mu ñëw ñu dénk ko ko. Hmm. mais bu mu demee ba ci biir xam na ne mënatu koo contrôler parce que kii ñii la def. Hmm. day wëri alalu réew mi nga xam dañ koo jël mais da koo teggi ndànk. léegi nag loolu nag mooy euh, moo moo moo wane nag waa ji mi ngi commencé dévier ci yoonam. Hmm. léegi nag ñii bu ñu ñëwee dañ leen di ñaan bu ñu xasee ba tegu ci raay bu ñu ci teggeeku bu ñu teggoo ci raay bu ñu ci teggeeku. maanaam lépp lu mu munti jar nañ ko dem bu mu sës lu ñu ci góobee gar ko waaye boo démarré tuuti rek ñu ne la ah législative yaa ngi ñëw de nga demaatu ñu ne la ah présidentielle bi jege si na de ñii boo leen bàyyiwul ñu dañ naan da nangam ak nangam yooyu yëpp pour man il faut ñu bañ ci bàyyi xel ku jël dërëmu Sénégal génne ko. Mhm. ku dërul ku jërul dërëmu Sénégal nag ñu bàyyi ko mu toog. du question da ngaa amoon tur wala mës nga ñoo saaga jëlul nga dërëmu Sénégal ñëwul wu si déedéet ku jël dërëmu Sénégal na ko indi ak fu mu ko munti làq ku jërul dërëmu Sénégal nag bàyyi leen ko fu mu toog mu toog ak lu mu mënoon ti wax bu ko mën a topp ca la mu wax bàyyi leen ko mu toog tout à fait Kumba Gadio yesina Kumba Gadio loolu laajtee yesina nee na Kumba Kumba nuyoo ne comme moom fi nekk sax dañ koy nuyu nee on est en vacances judiciaires Kumba Kumba mm. ziar naa lu bëri euh, jox naa la sa c'est toujours un plaisir euh, gis la si euh, kii panel bi si waxtaan bi nee on est en vacances judiciaires. mais mais le déjà ça pose problème. voilà ça pose problème fi mu tombé. Mhm. moo tax euh, boo bëggee bàyyiwaat fii ba weer bi jeexaat nga doog a problème de pour moi temps d'armes mënu laa xalaatal ñu am ko. par rapport à ak combat euh, dit qu'on est en vacances judiciaires ta jàpp naa ne carrément que qui dit Ousmane Sonko ak qui dit euh, le l'équipe gouvernementale ak même le président de la République Macky Sall les questions judiciaires le dañ et bàyyi ak ñi nga les acteurs judiciaires nous mu peut-être chantier yi nga xamné urgence yi nga xamné xalé euh, population mom la leen xalé mo nek le problème économique qui se pose au Sénégal ak li nga xamné mo nek xey xëy ndawee tey walum justice bi certes réduction des comptes est-ce que mun nañu wax né tey jii loolu rek la ñu war accentuer wala bayé li nga xamné mo nek ñom justice walum réduction des comptes ñom ñu atte le pas ci euh, li nga xamné mo nek problème économique surtout polémique bi nga xamné mu ngi joggé ci FMI ak Banque mondiale par rapport euh, ndax dañoo war a continuer ànd ak ñoom euh, waa déet ak tamit comment faire aussi euh, pour rek permettre xale yi ñu am li nga xam ne moo nekk des emplois décents. non loolu façon de parler lañ jàpp. Mhm. dañ yaakaar ne bu ñu ubbee benn dossier premier ministre day xëy dem toogi ji palais de justice. Mhm. ministre de la santé dem toogi palais de justice ministre des affaires étrangères toogi palais de justice ñoom ñëpp ñu dajaloo fa ne dañoo am dossier moo tax ñëwatu fa non loolu façon de parler la. Euh, magistrats yi dañuy def seen liggéey ñoom bu ñu xëyee ñu jël avion génn dëkk bi génn dëkk bi ñuy xëy dem liggéey dem liggéey ñi am rencontre dem doxi ji ko donc pour man euh, mënul doon loo xam ne dafay polariser attention équipe gouvernementale bi loolu mënul nekk. da nga mhm. daan dégg ñu naan non bi ñu fi ubbee dossier de perte temps lay doon mënul doon perte temps parce que euh, dossier judiciaire dafa am lu côté judiciaire bu koy gérer. Mm. administration doxal li ñuy doxal. donc loolu lépp ay alibi la yoo xam ne dañ koy teg si table bi pour mën a décourager loo ñi nga xam ne ñooy annoncé track bi. Parce que ça, Non, ils peuvent, ah non, ils peuvent faire leur traque de Mustafa, Mais est-ce que aussi, d'ailleurs, énergie Non, non, non, non, non, énergie de femme. Parce que nous avons fait, def, avons fait. Li ma la bëgg wax ministre de l'économie ak ministre des finances ñoom lu seen yoon si loolu. Hmm. am amuñu fa énergie di. Hmm. Ken gisu leen fa ken séentu leen fa sa buñ ñu dem nañ seen bureau def seen liguey donc amul lenn lo xamante fofu. mën nga taxaw nga ne non ministère baa ngi duñ ko wo ci audience demul xooli ji PV donc façon de parler la boo xam ne dañ koy def pour décourager la ñi nga xamante ne ñoo naan nañ leen topp ñu indi alalu réew mi parce que dañ naan boo leen toppoo di nga jëlee at yoo xam ne doo liggéey dara da ngay nekk si topp bi c'est faux amu kenn mënu fay jëlee at di topp nit. Mm-hmm. booy topp ñay topp ñooy topp ñay liggéey di liggéey parce que ñay topp looloy seen liggéey ñoom dañuy xëy soo ma ngoon di toppaate. léegi mm-hmm. pourquoi bu ñu leen indilee dossier ñu koy topp nga foog ne état bi yëpp moo nekk di leen topp. Euh, mais peut-être aussi nous euh, un pressentiment que état bi moo c'est de euh, communication yu faut foofu lañ Disney accès aussi Moustapha on a trouvé un état en ruine il faut dire la vérité aux Sénégalais ainsi de suite ainsi de suite Disney il y avait une communication peut-être pour ramener les Sénégalais sur ce dossier Robert Bon pourquoi assister au ton FMI ainsi de suite mais au Denis Disney carrément ministre de tutelle aussi il n'est absent peut-être le montant Sénégalais aussi di leen interpellé par rapport à ça. non man daal jàpp dama jàpp ne. Mhm. économie bokk bokkul ak li nga xam ne mooy justice. bien vrai que état la ñu nekk ñoom ñëpp benn chaîne la. Mhm. waaw mais boo bëggee jël mais mooy doxal réew aussi. d' accord naa mooy doxal réew. Mhm. waaye tamit réew dañ koy teg ci yoon tamit. bu fekkente ne dañoo war a àtte kii nekk na ancien ministre kii nekk ancien ministre kii nekk nangam ak nangam ak nangam te ancien ministre yenn yi sax pour ñu àtte leen mais il faut que ñoom haute cour de justice. haute cour de justice pour ñu constituer ko tey jii il faut nga am assemblée nationale bu yees pour nga mën ko constituer mm. moo tax euh, affaire bi du euh, du yomb yenn yomb si sinon kon yenn yenn yenn yenn yenn daaj yi ngay woo yenn directeur rek yu ni mel mais am na ancien ministre foog ñu xaar assemblée bi jóge fi léegi bu fi assemblée bi jógee nag euh, yeneen député yi ñëw parce que il faut nga am majorité nga mën a constituer li nga xamante ne def haute cour de justice euh, euh, député yi nekk fa ñu mën a atte ñi nga xamante ne ñooy ñooy ministre yooyu nga xam ne dañu leen di topp ci ay ci ay ci ay ci ay jëye yoo xam ne affaire malversation la mhm. moo tax certainement buñ ko ubbi woon tamit door ko dina am ñoo xamante ne